الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس wasalaatu wasalaamu ala nabiil huda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsaanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba aski Serigne Touba borom Touba moromantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi lay fekk fa nga nekk di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di balwaq ñëpp di di ñaan yàlla mu boole nu jéggal di ko sant ci xéewal yi mu nu defal te bi ci gën ëpp ci njariñ mooy boole gi mu nu boole Serigne Touba wul bi ci koom di ko ñaan lu ko neex rek lay def noo ngi koy tàllal loxo di ko ñaan tibbi ko ci suñu xol cheikh Mouhamadul Mountakha Bachiru mii fi nekk tey ci boppu lislaam yàlla taw féexal ko ba li mu yéene lépp ak liñ ko yéene lépp ci liggéeyal toolub lislaam bi ñu dénk Sëriñ Tuubaa mu jëfe ko jëmmal ko nu ànd kook moom te daje ci ngërëmul sëriñ bi tey nag ñu dikkaat fii di waxtaan ak yéen ci seen waxtaan wi ñuy séq ak yéen fii ci Saxum Touba muy jàll ci YouTube bi nga mën koo def ci Saxum Touba l'officiel boo demee ci YouTube bi daal di ciy mën a yem kon fii ci Touba Mbacké tey ni ma leen koy wax rek ci Daaru Xuddus nu dikkaat tey fas yéene waxtaan ci bunt bu bees bu ñu ubbi waaye bala ñoo tàmbali bunt bi nag di leen waxtaan nun suñu biir laayante biir ci lu nu taxaw seetlu ko jàngat ko mu dikkal nu xalaat ci muy diggante suñ diggante ak yàlla suñ borom suñ diggante ak yàlla suñ borom mi nu bind bu loolu jàllee nag bunt bi may ubbi tey ba keroog muy jeex insha allahu rabbi mooy diggante sëriñ tubaa ak alquran xawma lépp nag lu tuuti laa ci xam li ma gëstu lépp ak jële ko fu wér ci ñu wér bëgg nu seddoo ko ba mën ci xolaat sëriñ bi jëmmam ak fi ko yàlla teg ak li mu daj ak i jaar-jaaram kon diggante sëriñ Tuubaa alxuraan day lu yaatu lool bari njariñ lool waaye réy lool nag ba fan ci toll rek lanuy mën a wax kon diggante Serigne Touba ak alxuraan nag waxoon naa leen li jiital ci waxtaan wi mooy damaa toog bi ci yàgg may xalaat ma xool ni ndekete li yàlla sa li yàlla sàkku ci ñun yàlla li mu nuy demandé li muy sàkku ci ñun jëfewul te lu logique la lu xel mën a nangu la lu raisonnable la lu defu la li yàlla sàkku ci noonu bindee fi ñu jaamal ñu bind ak it ma xool ni ba ci ak man ndax yàlla li muy sàkku ci noonu njariñ da cee nekk lu munta ñàkk loo xam ne moom buñ ko deful dana ko wàññi dara ak it ndax buñ ko defee day am njariñ loo xam moom daf koy jëfandikoo da koy naan wala du mu koy defal lan la déedéet ndekete li mu nu digal lépp itam li muy sàkku ci nun nun moo tax nu di ko sàkkuwaat ci nun maanaam lu nuy jariñ la di fegal lor li muy sàkku ci ñun loolu yëpp lu tax ah, ghaniyun an kulli shay ghaniyun an kulli shay maanaam moom mën naa ba ku ne yàlla mën naa bàyyi ku ne te kenn mënu koo bàyyi ghaniyun an kulli shay lu tax daa mënal boppam lépp mën naa demal boppam mënal boppam lépp mën a bàyyi ku ne te kenn mënu koo bàyyi te mbindeef nag moom mënul lu boppam loru ci diggam ak nit ñi ci diggam ak boromam ci diggam ak lépp moo tax muy xalaat du ci yàgg ma ni yàlla li mu sàkk ci nun lu logique la lu raisonnable la lu yow lu war a lu nu war a def la kenn ku ne nag nga toog beneen yoon nga toog yow rek toog médité wu toog jàkkaarloog jubbu penku jàpp ba set xolat li may wax mooy yàlla leen la sàkk mooy nu gëm ko mooy leen gëm ni yàlla am na ni am na moom am na ndax am na ñu koy laam-laamee am te kon gëm ni yàlla am na nga xalaat asamaan xalaat géej gi xalaat mbindeef yi ba caag da nga def caag saytaan nga ni waaw waaw lii ndax ñëwul rek naturellement nii jekk ni polat déedéet maanaam yàlla moo sàkku ni nañ ko gëm nu gëm ni yàlla am na waaye bi ñu ko gëmee ba noppi dafa am leen lu mu sàkkuwaat nu reconnaître ko àqam maanaam ay droit droit yàlla ci nun nañ ko reconnaître nu nangu ni lii àq yàlla la ci nun maanaam ni nga naan àq ak yelle fi diw yàlla lii ak àqam la ci jaamam ñi xam la moo ko moom bi nga ko gëmee nag ba nangul ko loolu reconnaître ko nag ba tey kenn du mën ne def nga ko lenn rek moo nuy mën a firndeel ni yow loolu def nga ko mooy nga appliquer ko mooy nga jëfe ko jëmmal sa gëm ngëm googu ak nangul gi nga nangul yàlla yelleefam ci nun nga jëmmal ko jëfe ko noo koy jëfe moom wan na la yoon wi daa jël ay ndigalam teg fee jël ay teram teg fee ginnaaw gëm nga ni moom gëm nga ko ni yàlla la moom rek mooy yàlla gëm nga ni lii yelleefam la waree dañ ko koo jox war ko war jox léegi kon kay lim lay digal da nga koy def lim lay tere da koy bàyyi léegi nag li fekk nekkul ci ñaar yooyu nag sa ngëm googu nga nga waxoon moom existé wul nekkul gëm nga ni gëm naa ko yàlla ak reconnaître naa àqam loolu nekkul ci làmmiñ bi wax mais nekkul mënta nekk nekkul ndax day doon contradictoire day ñaar yu juunoo da ngaa wax lii ba noppi def lee kon ñaari yi mënta nekk ak ku mën a doon nag tàmbalee son bopp te yàlla li muy sàkku li ci jiitu bu dee téeméer bi ci gën a dëgër ëpp ji mooy benn rek mooy nga nangul ko ne ko moom rek la moom képp la moom dong la wahdahu la sharika lahu ilahun wahidun wahdahu la sharika lahu ñaari yàlla amul ñetti yàlla amul ndey amul baay amul amul dendandoo xarit amul dimbali amul secrétaire amul lenn moom rek donc moom nee na loolu loolu mooy bu dee téeméer juróom-ñaar fukki loolu la la sharika lahu ndend lay ba ndend mooy lan wujj yàlla mën na lii ke man loolu nag moo moo ta bàyyi xel bu baax ndend la nanguwul ndend laa sharika lahu loolu moom bokk na ci li nga xam ni gëm gi nga ko gëm ak reconnaître àqam dafa bokk ci ay àqam moom ay àqam yi moom léegi li ma waxoon ni ndax noonu lay jariñ jëf jooju déedéet li tax yàlla mën a bàyyi ñëpp te kenn koo bàyyi li nga yaakaar ni boo ko defoon tey yàlla da koy jariñoo julli geeg koor geeg nat ak yooyu yëpp nga yaakaar yàlla moom danga koy def ko jariñoo déedéet bu neexoon yàlla léegi loolu da koy sàkk fi saase jariñoo ko kon lim lay def defloo yow ci yow lay dellu siwaat maanaam yooyu mu lay loo mu mel da koy defal yàlla mu di ko naan wala mu di ko lekk wala mu di ko jariñoo wala moo xam wala mu di ko bànneexal moom moo sàkk bànneex balaa kon loolu kon mu jël mu sàkk bànneex di ko jëfandikoo nu mu ko neexee ki sàkk bànneex nag munoon ni su ma ko defalul lii du mënut a am bànneex koo xam ne moom moom bànneex xam nu ñuy defaree bànneex kooku boo ko defarul li koy bànneex xel tam bu ko neexee mu indi bànneex ci boppam li nga yaakaar ni moom la lay dan bu ma ko dama koy def day jëriñ yàlla itam loolu bu ko neexee moom yow sax doo am ba noppi muy def lu ko jëriñ moom maanaam bu neexee yàlla li nga yaakaar ni da koy jariñ nga di ko def mu di ko jëriñ nga naan lii moo def na jëriñ yàlla loola bu neexee yàlla mu bañ laa bind ba noppi def loola mu koy mu koy jëriñ bu ko neexee it mu indi leneen lu dul yow muy def loola maanaam daal moom lenn loo xam ne njariñ la ci nekk loo xam ne day jëm ci moom amul ci nu lay dellusi foofu laa jeexale tuuti rek boo demee ci suratu yaasin li tax ma indi mbir mii mooy fi Sénégal toll ci tar tar tar tar ak manque de solidarité gi léeg dëgg la naam am na waaye des na ndax li ma wér mooy li li nekk ci biir Sénégal ci ay sénégalais ñëpp rek laa wax góor ak jigéen li fi yàlla wàcce ci xéewal ci wërsëg. ak li fi yàlla wàcc ci ay nit biir na ma ni doy na waa Sénégal wala boog buñ tolloo fu mel nii biir na ma ni li fi yàlla bàyyi nit ñi moom ko ku nekk ak la nga moom buñ ci dimbalantee Sénégal du ay jafe-jafe li ma bëgg a wax fu mooy aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wa ida qila lahum anfiqu mima razaqakum ci suuratu yaasin maanaam yàlla nee na suñu waxee mbindeef yi ni leen wërsëg wii leen yàlla jox na ngeen ci dépensé dimbalante ci jàppale ci néew ju doole yi jàppale ci sa mbokk jàppale ci def ci lu baax génn ci joxe ci nee na yéefar yi buñ ko waxee yéefar yi daal di wax ñi gëm yàlla ni leen an nut'ima man law yashaa'u llaahu ngeen di wax ni nu dimbali leen sunu xaalis bi sunu alal ji ñu jox leen ko yéen du ngeen ni am ngeen yàlla nun nan nan la ñuy dimbalee koo xam ne bu ko neexee yàlla yàlla yàlla yàlla dimbali ko yàlla ngeen gëm nan la ñuy dimbalee koo xam bu neexee ki ko bind mu dimbali ko loolu xel nangu na ko yéefar yi ñooy wax loolu xam nga ku leen ko wax loo saytaane moo leen ko wax loo ni leen tontu leen jullit ñi tontu leen ñi gëm yàlla nee leen leen waaw ñun luñ leen di joxe suñu alal ji nag yéen am ngeen buur am ngeen ku leen am ngeen ku leen moom nan leen leen di dimbali te moom xanaa bu ko neexee dimbali leen lu tax du leen dimbali bu ngeen di ñëw ci noonu dem leen ci moom waaye ñoom fàtte nañ ci biir aaya bi ni fàtte nañ ni euh, yàlla dafa wax ni anfiqu mimma razaqakumullahu fàtte nañ li yor ci alal fàtte nañ ni alal yàlla anfiqu mimma razaqakumullahu dépensé leen ci lii leen yàlla wërsëgale maanaam wërsëgul yàlla yàlla leen ko jox ñu ngi koy jaay ak njàmbaar kat kenn ku dee du tuddoo ko bàkku anfiqu mimma razaqakumullahu dépensé leen ci li leen yàlla wërsëgale maanaam ak njàmbaar joxu yàlla moo ko jaarale noonu ci ay bunt ba mu egg si mais yàlla moo ko moom moo la ko wërsëgale mun nag dépensé waat ci mënoon naa ko jox kee ma ko xañ waaye yow laa ko yow yaa mu neex ba jaarale ko ci yow yow dépensé ci nag léegi njàmbaar gi ngay wax yëpp am na xam ne koo xam la muy sonn sax connoo ko yorul la nga yor waaye ginnaaw man nag yow laa neex ci yow laa ko jaarale dépensé waat ci ñoom ñu ni déedéet ah kon loolu mat daa taxaw seet jamono ji ñu kon yéefar yi rek laa buggoon wax foofu li ñuy waxanteeg jullit li ñuy waxanteeg way gëm yi loolu ab entre parenthèse la ndiggante su ndaw suba loolu indi rek bu ma ko bëggee tëj mooy fii nu toll ku la ko wax ak ku la ko waxul du ñëpp de waaye Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi dund situation boo xam ne metti na ci nit ci nit metti na ci as gor metti na ci jullit metti na ci dëkkandoo rawatina àll bi ak lenn ci daara yi ak ñi nga xamante ni bii dañoo laagu metti na lool lool waaye bu yaakaar ne ci ñooñu la metti am na ay gor yoo xam ne ni mettee ci ñoom mënuñ ko wax mën na am ndogu duñ ci jaar te li ñuy wax lu leer nañ la yi ci dañ ci teg ay bët. alal ji wàcc yàlla wàcc Sénégal nag waxuma waxi gouvernement waxuma yooyu yëpp dama ni solidarité bi war a am te sëñ bi doon ko fàttali bu yàggul ci diggante nit ñi ba mu ba may wax naan département par département département bu ne nañ jóg ay kilifa jóg fa ñu woote wër département ba département bu nekk ci Sénégal yàlla sàkk na fa nit ñoo xam ne bu ñu génnee la ñu am waa département ba ñi ci néew doole mën nañ cee dund ñeenti weer département bu nekk ci Sénégal département bu ne yàlla teg na fa ay nit ñoo xam ni seen loxo jot na seen ginnaaw kenn ku ne bu nga boo génnee la nga war a génne ngir jëm suñu borom ña ñen néew doole ca département ba loolee ñu génnee dana la mën a yor ñeenti weer mën naa ko waat département bu ne nag jëlal département ba tey Mbàkke tey nga boole ci Touba Mbàkke li fi nekk lépp ñi yàlla dimbali ñëpp bu ñu génnee teg daara du jooy sañcaan du jooy kenn du jooy demal département Diourbel demal département Bambey demal département Thiès demal département Dakar Dakar waaw Dakar ko ñoom mën nañoo jël ñoom mën nañoo Dakar mën nañoo génne ñoom ba sédd yenn ñetti département loolu nag mi ngi noonu lii ñuy wax itam balleex rek la léeg-léeg nga wax ak nit ñi dañu jàpp ne yow mi toog di wax fekk na yow miy wax sa bopp ci ci nga boole sa bopp man miy wax maa jiite sama bopp déedéet man du samay wax da di kay yàlla dina la jox mission boo xam ne da koy def rek nga def sa képp laa kattan waaye la may wax ak naan tere nañ ko digle nañ ko sama yoon maa ngi yéen ci am balligh maa unzila ilayk la yàlla wax yonent bi li ma la wax jottale ko communiquer yow yonent bi na jàll na wax ji jàll wax ko ñi nag wax leen ko na jàll yonent bi wul bi ku ni ballighu anni walaw aaya yàlla di ko ne jottali li ma la wax na jàll circuler information yi na jàll waxal nit ñi moom mu wax ba def li war a def lépp wul ko du dem nag daal ni ballighu anni walaw aaya ay waay dimbali leen ma bu doon benn aaya dong sax ngeen may jottali jottali leen ma ko message bi na jàll man nag foofu rek laa nekk jottali dong laa ci def lu la jottali ngir lan ngir xam naa ni am na lu ma xam am na loo xam naa ci sukkandiku jaamu yàlla waaye ki ma jàkkaar loolu di seetaan man tey ndax mënut a jàpp ni aw yiw laa ko yéene mën na am xaw ma ko yàgg na topp wala moo di ma xool mën na maa yem sama bopp rek am naa lu ma xam naa lu ma jaamoo yàlla te li lépp mooy topp Sëñ Tuubaa yaakaar ko doyloo ko waaw am naa lu ma jaamoo yàlla xam naa ko mais lu tax muy sonn balligu anni a aaya ngir yéene sama mbokkum jullit mi bëgg ko gindi xiirtal ko tegtal ko ba nun ñëpp ëllëg duñ am ay jafe-jafe tey ak ëllëg jaaree ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te loolu nag di ndigalul yàlla di jëfi yàlla suñu borom ju mu jaarale ci Sëriñ tubaa ginnaaw bu mu ko jaaralee ci yonent ba mu nopp mu rogalaat ñëw ci moom kon loolu rek laa ci bëggoon a indi ci tàmbali ndax loolu day bunt bu yaatu boo xam ne dinañ ci dellu léegi nag diggante Sëriñ tubaa ak alquran alquran dafa dugg Sénégal wax nañ ni nag. l'islam dugg na Sénégal waaye da cee am ñaari wax yu ñu ci wax bi l'islam dugg Sénégal dafa am ñu ni nii la fi duggee am ñu ni nee la fi duggee ñaar yëpp dinaa ko indi am na ñu wax ni l'islam bi muy dugg Sénégal ay commerçant yi arab ñu def commerce di ay arab ñoo dox a dox ba duggal ko fi fekk fi nit ñi ñu jàngal leen lislaam am ñu ni Tariq ibn Ziyad xeexkat bu mag boobee doon xeex di dugal nit ñi ci lislaam ànd ak xareem moo dugg Afrique wër adduna bi di xeex di xeex ba dugg Afrique dugal fi lislaam bay xeex di xeex ba ñëw Mauritanie gii indi fi lislaam ci Mauritanie Tariq Ibnu Ziyad fu mu fekk nii rek xeex ak ñoom ba dugal leen ci lislaam bi mu ñëwee ba Mauritanie nag ba dugal leen ci lislaam lañ wax ni dafa ñëw ba taxaw ci dexu Sénégal gii dex gii nekk diggante Mauritanie mu taxaw wan Mauritanie ginnaaw jàkkaarloog dex gi kon wan Sénégal ginnaaw yëkkati jaaseem ni maa ngi ci yàlla ni taarix ibnu Ziyad su fekkoon ni wér na ma ni ginnaaw dex gii ma jàkkaar loolu ay nit a nga fa dëkk jaral na ma ma jéggi ko dem xeex ak ñoom ba dugal leen ci lislaam kon léegi wax ji bu ma doon bu doon ci examen su ma doon laaj question war ngeen a mën a tontu kon mooy lan kon buñ nee taarix ibnu Ziyad moo ko fi dugal kon li gën a wér arab yi ngay mën a jàpp ndax histoire moom confirmé ne saxal na ni taarix ibnu Ziyad duggul Sénégal ci deex gi la yem waat na ni. su fekkoon ne xam na ni seen ay nit a ngi ci ginnaaw dex gi dina dem ba ca ñoom dugal leen ci lislaam ginnaaw nag lislaam dugg na Sénégal te Taariq Ibnu Ziyaad duggul Sénégal kon mënut dugal islam Sénégal kon commerçant yooyu ñu waxoon ñu jóge ci àll bi di ñëw di arab wala ñuy commerçant yi nekkoon Mali wala commerçant yi nekkoon Ghana di réew mu mag ci jamono yooyu daal mooy gën a wér ni ñoo fi dugal islam biñ ko fi dugalee nag. mi ngi fi dugg kañ kañ la islam dugg Sénégal diggante neuf cent ak huit cent yonent bi mu ngi gàddaay bi mu gàddaayee ba am juróom-ñeenti téeméeri at diggante juróom-ñeenti téeméeri at yi ak juróom-ñetti téeméeri at yi ci diggante boobu entre neuf cent et huit cent ci diggante boobu la l'islam dugg Sénégal bi yonent bi gàddaayee ba ñëw Madina ba mu am juróom-ñeenti téeméeri at jëm juróom-ñeenti téeméeri ci diggante boobu la l'islam dugg ci biir Sénégal kon dañu jàpp ni ci naar yooyu la jaare wala ci commerçant yooyu dugg ci biir Sénégal bi mu fi duggee itam alxuraan la àndal l'islam ak alxuraan ñoo duggandoo Sénégal ndax alxuraan mooy l'islam léegi nu mu def ba tasaaroo fi nag ñoo ñee ko fi dugal ci mag ñañ fekkoon ba jàngal leen ko dinañ ci indi ay daara yoo xam ni daara yooyu bokk na ci yi nga xamante ni bokk na ci yi nga xam ni ñoo tasaare seen ñoo tasaare lislaam Sénégal waaye lislaam bi mu duggee alxuraan ñu di ko jàng am na lu ñuy wax taal jàngu fàkk taal mooy gis ngeen moo tax daaray alxuraan yii ba ilaa yow mi diine rek lay mel ndax mooy cosaanul lislaam ci Sénégal fàkk taal taal jàngu bii ngeen di dégg taal ci àll bi mat gone yi wër ko di jàng mag ñi wër ko di jàng mooy cosaanul lislaam ak alxuraan ci Sénégal moo tax kenn mënu ci dara léegi nag bi fi lislaam duggee nag ànd ak alxuraan te alxuraan lislaam mooy alxuraan léegi mënoo dégg lislaam te déggoo alxuraan ndax alxuraan mooy lislaam mënoo dégg lislaam te déggoo alxuraan ndax alxuraan mooy lislaam léegi itam mënoo dégg alxuraan itam te déggoo arab ndax ci làkku arab lañ wàcce alxuraan mënoo dégg lislaam te déggoo alxuraan mënoo dégg alxuraan te déggoo làkku arab moo tax mag ñi nga xam ne ñoo jëkk jël islaam ci biir Sénégal ñu wëlbatiku nag ñoom di gàddaay di ànd ak commercant yi fi daan ñëw di dem Mauritanie di dem Maroc di laxas xamoon nañ luñ jaamoo yàlla naam waaye ñu dem dolli siinu jàng ngir gën a mën a dégg lislaam ma joxe ci misaal taal yooyu doon fàkk taal muy taal daara yi bi mag ñi gàddaay di dem di ñëw am na lu leen di jàpp ndalal ngir ñu dégg alxuraan mooy làkku arab lu mel ni lu ñuy wax albadi badiyaa bayaan maani naxwu yooyu yëpp ay xeeti xam-xam la yoo xam ne ngir nga dégg arab dëgg-dëgg yii ma la wax da koy jàng ba noppi pour nga mën a maîtriser langue arabe yii ma tudd nii ak yi mel ñoom grammaire rek yooyu yëpp da koy jàng waaye du caagi du ni jàng nga alxuraan man ngaa tari kaamil bi mën nga koo tiim jàng ko rek déedéet doo dégg islam il faut nga jàngi arab te booy jàng arab il faut nga jàng matière yii ma la wax ngir soog a mën a dégg dëgg dëgg arab ba mën a xam alxuraan loolu moo tax nag mag ñi lenn ci ñoom di laxas di dem def loolu ndax làkku arab ci la alquran wàcc te boo ko déggul doo mën a dégg alquran doo mën a dégg lislaam Sénégal rek am na benn erreur boo xam ne war nañ koo rectifier ci boppi nit ñi conscience collective yi nañ ko ci génne da ngay wax bi di mun la ay xale bi jàmbaar la di dafa jàng alxuraan de maanaam moom jàpp na ne dafa jàng alxuraan mooy dafa dégg diine maîtriser na science religieuse déedéet jàng na alxuraan mën na koo tari mën na koo liir mais xamul li muy tekki xamul li muy tekki loolu nag sénégalais yu bari fi ñu toll jàpp nañ ne bu ñu nee xale bi jàng alxuraan rek wala diw jàng na alxuraan rek jàpp nañ ne xam na diine déedéet at tey diine ak looy déedéet déedéet jàng alxuraan ba mokkal ko bokkut ak nag dem jàngi ba xam li alxuraan di wax ak li mu li muy tekki li muy firi Sénégal gi nañ nañ jëkkoon nag bis ni ki xam loolu bu leen déggati rek ni di jàng alxuraan wala sama doom ji wala jarabaatam bi moom woo leen ko moom dafa jàng alxuraan de ñëpp fekk na alxuraan jàng ko tekkiwul da ngaa dégg diine foo jaar jàngi làkk bi ba noppi làkk bi alxuraan wàcc muy arab langue bi maîtriser ko xam ko jekk ko ba noppi soo ko mën a xam alxuraan soo ko am xam lislaam léegi nag ngir lislaam tasaarewoo ci Sénégal daara yi fi yi ko fi jëkk gën a tase bi muy soog a ñëw duma lim yëpp mais ma dal kokki sëriñ Maxtaar Ndumbe Jóob bari na fu lislaam egg ci Sénégal ak alxuraan ci daara yi kokki la jóge sëriñ Maxtaar Ndumbe Jóob egg nañ sax ni li ñuy wax grammaire ci arab nahwu moom moo ko jëkk jàngale Sénégal grammaire naxu moo ko jëkk jàngale senegal bu jooju daara jàllee ci daara yi nga xam ni lislaam bi fi la jaar di tasaaroo mooy daara jawoon ca caameen sëriñ ma sàmba caam ca caameen ci daara yi gën a yàgg nag laa wax yi fi tasaare lislaam ak kii bu daara jooju jàllee daara yi mbàkke jolof muy maam maaram daara yi mbàkke jolof maam maaram mbàkke maam maaram moo jur mooy wéy mooy wéyjuru Habibullahi Balla Aysa Balla Aysa Habibullahi Balla Aysa mooy wéyjuru Mamour Anta Sali Mamour Anta Sali ci la sëriñ bi génne mooy wéyjuru sëriñ bi daara Mbàkke Jolof jooju nag bokk na ci daara yi nga xam ne tasaare nañ lislaam Sénégal ak alquran du ma lim yëpp nag misaal rek laay indi daara bi ci mujj ma di ko indi mooy wala ñaar yi ci mujj daara yi pire Boubacar Pende Yéri Boubacar Pende Yéri rek daa siiw siiw siiw ba ñëpp di ko wax rek waaye mën naa am sax daara ji jiit na ko ca pire waaye nag siiwaayam ak tolluwaayam moo tax foo du tudd rek daal di ne Boubacar Penda Yéri kon daara jooju bokk na ci li yaatal l'islam Sénégal daara ju ñu taal di takk taal jàng muy taal jàngu fàkk taal beneen bi ci mujj may jeexal ci misaal yi mooy daara ju ñuy wax daara ja ca Bamba ca Saloum te Mouhamadou Sall yoroon ko kuy wax Mouhamadou Sall yoroon ko daara jooju nag dinaa taxaw tuuti ndax xam ngeen li tax ba ci taxaw daara ja ca Bamba dëkk bu ñuy wax Bamba ca Saloum bañ naan Mouhamadou Bamba Sall daara jooju ca la Mamor Anta Sali Mbàkke jànge lu mu fa jànge xam-xam la fa jànge xam-xam gis nga Mamor Anta Sali jàng na alxuraan mu noppi am na sax yu mu jàng tax waaye xam la jàngi woon kon ca Mouhamadou Sall ma ca Bamba Mamor Anta mooy woy juru Sëñ Tuubaa ba mu fa eggee ba mu nuyoo ba toog ba noppi bëgg jàng xam-xam ci Mouhamadou Bamba Sall indaale na fa lu ñuy wax ndallu mag ñi bu ñu daan jàngi ci nitu xam-xam dañuy yóbbaale fas fas woo nekk fa di liggéey di liggéeyal sëriñ ba mu doon droit d'inscription maanaam mel ni koy loolu nga koy jote loolu nga koy fayee daal moom koy fayee xam-xam bi mu lay jàngal booy dem bàyyi ko fa Mamour Addis nag bi mu demee bu nuyoo ba noppi ak la muy ndaale Ahmadou Bamba Sall mi ko doon jàngal mu Mouhamadou Bamba Sall mi ko doon jàngal da ko ne yow jëlal sa ndallu lii booy dem nga yóbbaale ko yow leen rek laa soxla ci yow Mamour Addis moom Mouhamadou Sall ma ca Bamba ni ko yow leen laa soxla ci yow nga fayee ma ko ci li ma lay jàngal mooy boo delloo ci sa dëkk du doon sa soxna su ngay jëkk am waaye jàpp naa sa soxna su ñaareel lay doon du doom ji ngay jëkk am itam waaye doomi ñaareel ja lay doon kookee bu feeñee ci yow lay jaar feeñ bu feeñee nag li nga may feyee tuddi ma ko rek moom tuddi ma ko boo mu ko tuddee rek mooy li ma waroon fay ci li lay jàngal góor lay doon itam waaye nag bu feeñee itam nag bul ko jàppe sa doom bul ko jàppe doom na ko jàppe ab sëriñ ndax góor lay doon te jëmm jooju bu feeñee xettaliku àdduna ak àllaaxira rek mbindee bi ci moom lay jaar booba Mouhamadou Sall moomu nekk Bamba du du murit boobu murit amagul waaye suñ borom may na ko ci xam-xamu baatim bu mu séq diggam ak yàlla ba mu xam li nekk ci Maamor Anta ak xam-xamu zahir ba nga xam moom la ko doon jàngal muy ñaari xam-xam xam-xamu baatin bi ko yàlla may ba mu mën a xam loolu ci Maamor Anta ni ko doom jooju góor lay doon xetliku mbindeef yépp tey ak ëllëg ci moom lay jaar bu ñëwee nag bul ko jàppee doom jàppee ko sab sëriñ tuddee ma ko nag man boo ma ko tuddee rek fay nga ma moo tax Maamor Anta bi mu ñibbisee ba am ku tedd ki mu tuddi ko Ahmadou Bamba moo tax waral Mouhamadou Bamba ji lii moo ko waral sëriñ ba ko doon jàngal la ko tuddee ni ko rek sa ndallu mën nga ko yóbbaale mooy li nga indaale woon war koo fayee sa droit d'inscription yi nga indaale woon bi loolu jàllee bi mu ko defee nag sëriñ bi alxuraan ñu di ko jàng ci Sénégal di ko jàngi nii ma leen di wax ci daara yu bari kër yu bari am na gox bu ñuy wax mbaakool diggante mbaakol Kajoor ñu teel a jàng alxuraan lool di ko mokkal lool man ko lool jekk ko lool waa mbaakol ak Kajoor ñu mën ko lool mbaakol ñu siiw ci loolu ci alxuraan léegi nag biñ koy jàng bokk yi nga xamante ni bii ay jur lañ lépp lañ diggante jaane xumma jaxate silla ak ñu mel noonu ci mbaakul jekkoon nañ alxuraan di ko jàng di ko mokkal waaye bañ ko daan jàngit nañ ko doon jànge bukkut ak nañ war a jànge alxuraan lu tax dañ cee boole woon lu ci bokkul moo ne yéene ju rafet lañ amoon de lu baax a taxoon ñu doon def loolu dañ doon wut ay baati olof di ko ci dugal mooy waññi ak walaan waññi ak walaan di ko dugal ci biir alxuraan ji baat yoo xam ne bokku ci dañ ko bëggoon def ay repère ay xamtukaay ba gën a mën te alxuraan nag kenn du ci boole lu ci bokkul boobu sëriñ bi ñëwagul de dama leen bëgg a wax fi alxuraan nekkoon bi sëriñ Tuubaa daa ñëw fi mu fekk alxuraan fi mu ni mu nekkoon ak bi mu ñëwee fi mu ko fekk ak fa mu ko yóbbu ak na mu doon def moom wàññi ak wala mag ñi daan dugal ay baati olof ci biir te kaamil alxuraan di ko ci boole di ko jàngale ngir mën a xam xàmme fi ñu yem ak ni koy xàmmee ak ni ñu koy maîtriser loolu boo taxoon yéene ju baax la woon naam waaye nag alxuraan kenn du ci boole lu ci bokkul ci diggante bokk yooyu nekkoon baa alxuraan li ci nekk dong nga ciy bàyyi léegi nag bokk na ci ni ko doon jàngee ñoom wan la ni ñu doon jàngee alxuraan bi sëñ bi daata ñëw ni ñu ko doon mooy mag ñoo ñee ma leen di wax dem nañ ba am ay jàngkati alxuraan alxuraan ñi ko daan jàng Sénégal ba mu soog a ñëw mooy mag ñi ak waxambaani ak ndaw ñi ñëpp ko daan mokkal ñëpp ko daan mokkal daan ngeen déglu ñu am kaam dim aw kaa am kaang la mooy kaang moo xam ne foo ko laaj ci alxuraan man buy nelaw sax boo ko yee mu wax la ko loolu mooy am kaang jekku léegi nag ñoom bi sëñ bi daataan ñëw ni ñu ko doon jànge wax naa leen ni boobu ci la bokk baat yi ñu ci daan dugal te bokku ci waaye beneen bi doy waar mooy ki mokkal alxuraan ba mën koo jàng lool day dem ci tund wi tund mooy communauté bi nga dëkk ñun ñal commune commune commune bi mu dëkk tund bi mu dëkk mooy aw tund wala département ba ka fa mën alxuraan loolu day dem ba ci ñu seeti ndaw sa fa gën a siiw gën faa rafet jànq ba fa gën a siiw gën faa rafet ca tund ba ki mokkal alxuraan kaang mi ñëw di ko jàngal si alxuraan moom ndaw si jànq bi jànq bi bu ñëwee nag jànq bi rayal ko aw nag mbooloo mépp teew muy jànq ndaw si lay jàngal si alxuraan si ndax mooy kaang mi mu reyal ko aw nag di ko feetal nit ñi ñëw du ca yem de dinay jàng alxuraan ba ci yàgg léeg-léeg bu ñu koy bind itam ci pojum ndaw si lay sóonu ba bi ñëwagul ñu doon def alxuraan kaam buy bind alxuraan nii ci kayit bi day sóonu mel ni nga gën a ndaw si daal lay def nga gën soxna si tuuti woon ndalalal waaw ndaw si lay def nga buy bind loolu moom amoon fii senegal beneen bi ci topp daan nañ ko jàng sax ci kanam jaraaf yi ak kanam buur yi boroom xam-xam yi jàngkat alxuraan daan nañ dem di jàngal buur ak jaraaf alxuraan waaw buy de bind alxuraan suunu ci poojum ndaw si mu di ko pendalal jànq bi di ko pendalal mu ñëw di ko jàngal alxuraan mu reel ko nag di ko fetal nii lañ doon def alxuraan bu njëkk ñu dem nag ba loolu xam ne du jàng wi ñu war a jàng alxuraan du ni ñu ko war a bind mu def nag jëfandikoo guñ koy jëfandikoo gu bokkut ak ni ñu ko war a jëfandikoo mooy lan buur yi bu ñu daan xeex ñu dem si sëriñ soosu bu ñu demee mu bind la lu ñuy wax dàkkuk ndaam wala soxal la béjjën wala alluwe xànjar ak yi mel noonu yëpp su ko defee léegi nga takk ko wala nga jëfandikoo ko dem xeex ak ko pour gañe ko loolu dañ daan jëfandikoo alxuraan ginnaaw bi loolu jàllee. am na ci loo xam ne kenn du ko mag ñëpp historien xam nañ ko am na buur boo xam ne ci Sénégal fii ci Kajoor buur boo xam ne bi muy falu doomam ju jigéen la woo ab sëriñ mu ñëw sëriñ bi futti ndaw si ba mu futtiku mu bind yaram wépp alxuraan ba yaram wi daj ñu suul ko mu faatu kooka soog a mën a falu alxuraan loolu la fii ci jël xale bu jigéen bi futti ko ba mu set bind ko alxuraan yaram wi wépp ba mu noppi suul ko mu faatu alxuraan nag ñëwul ngir reyaate ba mu faatoo ci la kooko bàyyi ba soo ko mën a falu alxuraan ñëw ngir rey dafa ñëw ngir dundal kon loolu ñu bàyyi ci xel kon nii daal tënk sëriñ bi fekkoon na ñu koy taaxuraane defe nu ne alxuraan rek waaw loolu yëpp duñ ko jàng ca jànge doon ko jàng ba tax na duñ mën a jaamu yàlla nañ ko war a jaamu ci dëgg-dëgg jaamu ja kon loolu moo fi indi woon léegi nag mu fan lañ toll nu dem ba toll ci jamono joo xam nag yàllaa ngi xamal àdduna ak lislaam ak alxuraan ni ko jàmbaare gi bëgg ñëw nag ju la xett li génne la ci situation bii yow alxuraan jàmbaar a ngi bëgg ñëw ju yàlla waajal ju lay ñëw di xett li ci situation bii nga nekk génne la ci alxuraan nii la mag ñiy def di la jàng ci jàng nu ñu la war a jàng di la jëfandikoo ci nu ñu la war a jëfandikoo wàcc joxuñu la sab cër a ngi bëgg ñëw ju ñuy waajal joo xam mii ñëw génne la ci loolu ni ko mag ñi daan jëfandikoo caaxaan yi ci nekkoon ak yépp mu ni ko jàmbaar ngi ñu génnal ci loolu loolu nag liñ ciy jànge mooy sëriñ bi bi muy bëgg a ñëw yàlla gaa yi yàlla yépp xam ngeen ko ci histoire nit yàlla yépp li ci ëpp bu ñu ñëw dañ leen di waajal maanaam fa ñuy jaar ak ña ñuy jamonoonteel ak ña ñuy nekkal ak yépp yàlla ñooñu nit yàlla yu ci ëpp bu ngeen xoolee histoire da leen di waajal maanaam préparer terrain bi waaw ba mu ko bëggee nag defal loolu moom Xaadimu Rasuul mu indil ko ku mel ni Mouhamadou Bamba ci misaal mu indi ku mel ni maam Mouhamadou Bamba mu jamonoon teg moom di jàng alxuraan ci niñ ko war a jàngee di jaamu yàlla ci ci dëgg-dëgg yàlla mu indi ku ñuy wax Mor Khoudia Koumba Diop mu jóge ci kan maxtar Ndumbe muy jàng alxuraan ci niñ ko war a jàngee di ko jaamu ci niñ ko war a jàngee dëgg-dëgg. mu indil ko ku mel ni maam xaadima jaxate kala muy jàng alxuraan ca jàngir bu ñu ko war a jàng di ko jaamu di jaamu yàlla te ñu ko war a jaamoo lii lépp nag ay signal la muy jiitu si sëñ bi mooy ay signal la mu indil ko ku mel ni maam Mor Anta mu génn ci moom jaar ci moom mu wéjuram mu yar ko toqi ko nampal ko yar ko ci diine lislaam ju wér ju tegu ci yoon mu jaar ci moom yooyu yëpp ñii ñëpp sëñ dañoo ñëwul ngir waajal sëriñ bi mu indil ko ku mel ni Ahmadou Soxna Bousso indil ko ku mel ni Sayar Mati waaye mu indil ko ku mel ni Soxna Jaara ku ko xam-xam ak diggam ak ñii ñëpp sëñ yàlla da doon da doon préparé ngir ñëw sëriñ bi ay ay biddiw lañ ñu doon xam la ni jant baa ngi bëgg fenk si ay biddiw lañ ñu doon xam ne jant a ngi bëgg a fenk si noonu ay biddiw rek lan ba loolu kan loolu di am di am di am ba atum mille deux cent soixante-dix junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay gi bu ñu la nee gàddaay mooy yonent bi bi mu jógee Màkka gàddaay ñëw Madina nun ci at moom la ñuy sukkandiku bi yonent bi defee loolu nag ba mu tollu ci junni at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk nag mu tolloog li ñuy wax ama sharaa muy ci alquran sharaa lakum min ad-diini ma wassa nuuhan sharaa lakum min ad-diini ma wassa bihi nuusa ma nuuhan muy ayib alxuraan boo xam ne charaa jooju mu ngi ci alxuraan mooy tolloog mille deux cent valeur am numérique am mooy mille deux cent soixante dix charaa te aaya bi li muy teg tegtale mooy kii war a ñëw ngir indi diine ngir teg yoon jaar ci yoon jaaral nit ñi ci yoon léegi ni ni ni yàlla ni yàlla tërali diine indi ko ci charia ak lépp Seydina Nuux jaar ca at moomu aaya boobu at mu charaa jooju le mot charaa mi ngi tombe boo ko defee valeur numéro gi mooy 1270 ci at moom la Cheikhul Khadim gane àdduna boo ko xoolee ci miladier muy at grégorien mooy 1854 am na ñuy wax nag 1852 1853 mais nit ku màgg ak moom yooyu yooyu waaye daal 1270 mi ngi toll ak 1854 loolu moom jërul nekk sax di waaye li am solo mooy li nu nekk nii kon 1252 ci gàddaay gi toll ak 1854 di charia ji nekk ci alxuraan. ci la yonent bi ci ci ci la ci la ci la sëñ Tuubaa feeñ ci Mbàkke Bool bi mu feeñee nag kiimaan yu nekk am na ci waaye bunt bi nekk nii du loolu bunt bi nekk mooy Sëriñ Tuubaa ak alxuraan waaye nag ginnaaw bi mu feeñee rek itam dafa am rapport ak alxuraan te alxuraan ak Sëriñ Tuubaa ñuy waxtaane foofu moom wet googu dañ ko ci leeral diggante Sëriñ Tuubaa bi mu feeñee ak rapport bi mu am ak alxuraan bi mu daataan feeñ gane àdduna ku mel nii war naa mën a mel nii soxna maam jaara buso soxna maam jaara buso way juru sëñ bi soxna ma rema buso nee na daf daan def saa yu tolloo foofu maanaam su amee lu mu yëg ci boppam ñuy wax ci jigéen tollub diggante li nekk ci moom soxna si neen dama koy dégg muy jàng alxuraan su ma tolloo foofu jigéen ñi toll rek damay dégg li nekk ci sama biir di jàng alxuraan mu koy dégg bi mu demee nag ba def ko ay yoon ñi mu ñi ñi daan jaar ci moom ku ci juddu rek da faatu bu la déggee ngay jàng alxuraan rek boo ñëwee da ngay faatu dangay dem bi ñu demee nag ba tolloog waxtu wi sëriñ bi ñëw nag bi mu tolloo foofu nag moom soxna ci te sëriñ bi ne fi nee na nag mu dem ci Ahmadou soxna Bousso maamam mii wëjuru maam Asta Waalo ñenn ñi seer Mbàkke Ndoumbé lañ wax waaye kum ci mën a doon dem na ci kenn ci ñoom moom maam jara ni ko damaa bëgg damaa toll foo xam ni am naa lu ma yëg bii sama biir day jàng alxuraan ma di ko dégg te saa yu ma ko masaan def su ñëwee day dem du dund ma bëgg na kii moom mu des fi mu ne ko baax na dañ la ci ñaanal muy Ahmadou soxna bu soloo seer Mbàkke bi kum ci mën a doon kenn la ci ñoom daal dem na ci ñoom soxna si ñaan loo ko ni ko bii yoon daal ki nekk ci sama biir di jàng alxuraan te ñi ko jiitu woon bu ma ko déggee dañuy dem kii moom dama bëgg loolu bañ a am mu ñaanal ko ci loolee yàlla def sëriñ bi ci mbaaxam ak tëddam soxna si dégg mu jàng alxuraan ci biiram ba ne mu gane àdduna ba alhamdulillahi rabbil alamin waaw kon léegi lu ñu mën a jàngee foofu boo bëggee xool li may waxtaan yéen mu sëñ Tuubaa da ngay jàpp ni daa indaale alxuraan li ngay jëkk jàpp mooy jàppal ni sëñ Tuubaa daa indaale alxuraan kon bi muy ñëw ndax soxna si daan na ko dégg muy jàng alxuraan ci biiram boobu benn la bi mu ganee àdduna itam Cheikh Mouhamadul Bachir am na téere bu mu bind muy jaar-jaari Sëñ Tuubaa minanul baaqil xadim loolu xam nga lu muy tekki minan mooy ay xéwal maanaam ay may ay xéwal minanul baaqil xadim minan minan bien bienfaits may yi yàlla may noonu Sëñ Bachir dani may yàlla yi nga xam ne moom la may yàlla aji des ji may yi may moom mi nga xam mooy aji des ki mooy ku yàgg ki may yooyu mu may Sëriñ tubaab moo tax mu tudd ko Minanul Baaqil Xadiim waaw may yooyu nag sëñ téere boobu nga xam ne siiw na ci kuy dem di nga ci gëstuwaat moo wax lii ma leen di bëgg wax sëriñ Basiru nee ci téere boobu soxna jaara nee na sëriñ Basiru day nettalu soxna jaara wax bind ko ci téere bi mu ni muy source soxna si nee na bi sëriñ bi nekkee ci ndaw jaaxal na ko loolu ndaxte li ñuy def gone di ko kaata wala nga di ko dóor wala nga bañ koo jox lekk wala nga di ko mitital nee na loolu ci sëriñ bi fu mu ci jaar fu ne kenn musta mën a seere wala nga mas a gis ni sëriñ bi def nañ ko ko ba mu jooy loo ko mitital mitital naq loo ko naqaral naqar ndax loolu yëpp gone dina dem foo xam boo xamagul loo mu doon léeg-léeg dina la jaaxal ci ñàkk a jooy ak ñàkk a nga ni naa seet ba xam naqaral ko bañ koo jox lekk kaata ko bañ naqaral ko mitital ko nee na soxna si mu séesu koo def ba sëriñ bi jooy ci boobu tout tànk la waaye nee na itam musoo ko def ni ñuy def gone yi coqataan ko wala nga reetaan loo ko wala nga may ko dara wala nga di ko siicu di ko def lenn ba tax seen bi ree lenn lu ko doon def boobu métti ba nee na lenn loo ko mos a def ba tax mu ree amul te boobu tout tànk bu tuuti la te ku ne xam ne tout tànk boo ko woowee rek ni ko siicu wala am na yoo xam ne da lay wuy si ree la waaye sëriñ bi nee na soxna si nee ñaari yëpp mus ko ci mus cee jaar sëñ Bassirou ko ci mi noonu baaxil Xadim léegi soxna si ci biir ndaw sëriñ bi bi mu nekkee tout tànk soxna say nettali ci Minanul Baaxil Xadim ba tey nee na bi mu nekkee ak do njabootam gi moom dafa tàmmoon loolu moom soxna jaar te loolu yéen jigéen ñi war ngeen koo jéema a góorgóorlu di ko appliquer di ko tàmm ci ñëpp mooy mi ngi mel ni soxna jaar daf daan toog njaboot gi wër ko mu di leen nettali gaa yu baax yi wàllu yàlla naan leen dañ daan jàng alxuraan bu guddee dañ daan toog ba nit ñi tëdd ñuy jaamu yàlla dañ daan joxe ci seen alal nangam nangam di wax yu baax dal ba egg ci nag wax naan gaa yu baax yi daaw ñu nelaw guddi bu guddee bu ñëpp tëddee ba tëdd dañuy dem jàpp ba set di fanaanee julli Serigne Touba boobu mi ngi toll ci parental ngeen jéggal ma boobu toll ci war fer lay toll dégg na wax nag waaye xamul li ñuy wax dégg na li soxna si wax waaye xamul li ñuy wax soxna seen li lii nettali ko sëñ bi Basiru bind ko lam doon wax ne julli guddi googu sëñ bi dégg dégg loolu noonu noo xam mais xam na ni xëy na sëñ bi da naan zahir mënut mu ngi ko xam ci zahir waaye daal dégg na wax ji fa soxna jaar def jullikaayam di fa jullee ba sëñ bi déggee loolu tey tollu ci parental bu guddee mu dem fa jullikaayu woy juróom wu soxna jaara taxaw fa xëy na ci zaahir doo mën a xam ne doo doo mën a wax ne xam na li muy wax waaye soxna si nee na fa lay taxaw di rokkoo ak a sujjóot di rokkoo ak a sujjóot ba mu yàgg mu dem léeg-léeg dana am guddi yoo xam ne dafay rokkoo ak a sujjóot di rotiwoo ba bët set te tollu ci parental te tollu ci parental soxna jaara lii la nettali loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a gone gu toll ci parental dem ci jullikaay di julli di rukkoo doo wax waaye yaa ngi rukkoo rek léegi rek bi mu koy def ba ci yàgg nag loolu da jaaxal ñu bari soxna jaara ak i maamoog ñooñu bi ñu ko nettalee ñu yaakaar ni ñu ni ñu ni am ñu ni dafa dof ngeen jégal ma wax nañ ko ci yont bi baat bi dañ ko nañ ko jégal rek ñu ne nag kii moom wérul ndax lii muy def ci gone gu toll parental dafa dof kii ma leen waxoon muy sëriñ Bousso bi Ahmadou Bousso Ahmadou Soxna Bousso wala Sayer Mati moomu kenn ci ñoom ndax dañ doon dañoo doon ay personne personnage central ci dundu Sëñ Tuubaa muy maamam jooju ak Sayer Mbàkke waaw ak ñeneen Ahmadu am ñoo dañoo doon ay personnage central ci biir dundu Sëñ Tuubaa loolu tax ñu leen di tudd lu bari ci ndaw gi nii am ci kenn ku dem ni léegi li pexe mooy bàyyi leen nu da teel koo dalal alxuraan li li tax ñu teel koo dalal alxuraan laa leen di wax li tax ñu teel a dalal Sëñ Tuubaa alxuraan boobu juróomi at la am ñu ne lii muy def nii kii wérul dafa dof léegi rek ñu ne déedéet bàyyi leen ñu yóbbu ko daal ko alxuraan suñ ko dugalee alxuraan su nangoo alxuraan ñu xam ne dafa bokk ci gaa yu baax yi su fekkee nag nangu ko ñu xam ne dafa dof ñu jéem koo dem faji loolu rek ci pex loolu moo tax ñu teel a jël sëñ bi yóbbu ko ci juróomi at dem dalal alxuraan bañ ko dalalee alxuraan mu nangu ko lool sawar ca lool ci ci juróomi at juróom-benneelu at juróom-ñaareelu at muy ñaari at la fa def mokkal alxuraan diggante sëñ bi ak alxuraan laay wax de ñaari at la def ca daara ja mokkal alxuraan fi ñu koy jàngale bi ñu ko dalalee ñaari dal lañ ko dalal mokkal na ci ñaari at yi ñetteelu at bi mu bind ab kaamil maanaam ci juróom-ñaari at la mokkal alxuraan ci juróom-ñetteelu at la bind kaamil ku mas a gis loolu ku mas a mokkale noonu alxuraan wala nga mas a jàngee noonu alxuraan noo ngi laaj ko mas a gis waaye nag alxuraan la indaale bi leen ko fàtte te it waxoon na ni yàlla dafa am loo dafa am ñu ñu waajalal sëñ Tuubaa kon sëriñ bi lii mooy njàngum alxuraan ba mu noppee nag ci alxuraan ji ba noppi nga xam ne ci juróom-ñetti at la bind kaamil mokkal def lépp ñaari at la mokkal alxuraan mu nekk ci Maamor Anta Sali way juróom nag mu di ko jàngal xam-xam loolu nag kon day leen di leer ni kon Mbàkke Bawol jóge na Mbàkke ndax yàgguñu fa ginnaaw bu mu gënee àdduna dëkk bii ngeen di romb di dem ko saa yu nekk muy xuru Mbàkke 1999 laa ko bindoon ci Touba Magazine wax ni le village d'enfance du Cheikh méconnu par quatre-vingts pour cent des fidèles muy Xuru Mbàkke gi ngeen dégg kon loolu fa la xewoon fa la soxna jaar téyewoon sàkket wa benn néeg unique néeg bi ngay gis ñu la fii la soxna jaar duggoon ak caabeem néeg baa ngi nii fii sëriñ bi nee na dem sëriñ bi bi mu fi dellusee dugg na ci néeg bi nee na loolu di wax loolu wolof di wax for mbootu fii laa ko defee ci néeg bii loolu Xuru Mbàkke gii la nekk kon loolu fa la doon jàng ci Maam Mor Anta Saly xam-xam ginnaaw bi mu noppee ci alxuraan ñu toog fa ab diir nag toog fa ab diir yàlla dogal Maba Jaxu woote ca Ñooro ca Saalum ci bi mu woowee kilifa yi diine yëpp ci turu lislaam Maam Mor Anta nag jóge fi ànd ak njaboot gi dem Saalum bañ demee dëkkuñu Ñooro xoolal ci ku ñu waajal ba tey xool leen Poroxaan ni mu situé rek ak ni Ñooro situé te du moom rek du moom du Maam Mor Anta Sali rek wuy ji woon sëriñ sëpp a demoon wuy ji wuy li ci ëpp bokk Maam Mor Anta ba mu demee mu sañ ci Poroxaan am naa nag ciy nettali sax awma nag lu ma leer ci loolu waaye am na ñu may nettali ba ne nee nañ dëkk bi dëgg dëgg cosaan li alfurqaan la te furqaan ci turu alxuraan yi la al alfurqaan waaye ala kulli xalin daal poroxaan moom bi Mamour Anta demee wuy ji Maba la ko sanc kon ñu ngi nekkoon ñoom ci toolub lislaam lañ wujjee woon ci lañ demoon ba soxna jaara des fa nga xam ne kon soxna jaara waar wu wàcc ci tool bi la xandeer damm na ca waar wa xandeer damm na ca waar wa ndax dafa dem poroxaan nekk fa ànd ak Mamour ba yàlla moom ko fa lii moo waral seenu demu poroxaan ba niñ fa jógee jógewaatee dellusi nag Mbàkke Kajoor kon diggante Sëriñ Tuubaa ak alxuraan lii laa leen ci bëggoon a indil tey waaye ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ba noppi nag ci Maamor Anta Sali jàng nañ ci ku ñuy wax Sàmba Tukulóor Ka Sàmba Tukulóor Ka way juróom wu jigéen ak wu Maamor Anta Sali ñoo bokk ndey ak baay ñoo toppante bàyyi tax li ci sëriñ bi moom demoon na gànnaar wuti xam-xam bi mu dellusee bari na lu mu jàngal sëriñ bi moom ci xam-xam moom sëñ Sàmba Tukulóor Ka bari na loo xam moo jàngal sëriñ bi ci xam wérdu xaadir sax nee nañ bi mu ñëwee moo ko indaale jox ko Mamor Anta Sali waaye it histoire wax na ni maam maaram mu mag ma ñoom naka jëkk ay xaadir lañ woon kon Mamor Anta Sali fi mu bokk dañ ñuy ay xaadir lañ woon lii moom Samba Tukulóor ka dañ ko cee wax rek muy version boo xam ne nee bi ñu ñëw moo ko indaale waaye daal moom li ëpp ci xam-xam bokk na ci ñi ko jàngal sëriñ bi sëriñ waa ginnaaw bu mu jógee gànnaar sëriñ bi nag bi mu amee fukki at ñeent nekk nag Mamor Anta nekk ci kër baayam di jàng di di ko jàngaleel alxuraan yoral ko daara ji di ko jàngaleel alxuraan yoral ko daara ji bi mu fa de bi mu demee ba am fukki at ak ñeent ci daara yi Mamour la jëkk a bind téere bu ñuy wax mu layinu sudur 14 ans à 14 ans à 14 ans fukki at ak ñeent ci la Serigne Touba jëkk a taalif ab téere mu layinu sudur dem ba ci yàgg mu soppiwaat ko tuddi ko mu nawiru sudur lii leeral dënn yi lii nooyal dënn yi la jëkk du tudd téere dem ba ci yàgg mu ni à l'âge de 14 ans jàpp leen 14 ans fukki at ak ñeent ci la a taalif ab téere bi xam-xam te boobu mu ngi ci daara wuy juróom di jàngale xam-xam di jàngale alquran kon mbokk yi fii la ñu yemagul lii ci lan la ci dundu sëriñ bi te waxtu wi waxtoom la ndax li mu def alquran lan rek laa ciy wax loo xam ni dama koy anticiper ndax bu ma bëggee wax ci mën nañ fe boo bëggee wax rek ci lu gàtt ni ma ni ni sëñ Tuubaa mel ci alquran xoolal bi njaa njaareem fi ñuy jàngi kaamil yi njaareem daara yi kaamil fi ñu koy jànge nee nañ mas naa toog ba ci yàgg mu wax mag ñi leen jukki sàngam di ak barab sàngam ci alxuraan ak barab sàngam kenn jàngu ko fekk booba dañoo séddoo kaamil bi kii jël parti bi kii am ca nag koo xam ni jàngul lañ ko jox bañ jàngee ba noppi nag ba defe ni sëriñ bi moo woote ba mu ñëw mu ni barab sàngam ci kaamilu alxuraan ak barab sàngam kenn jàngu ko xoolal fa mu toog di xam ña jàng jukki ba ak ña ko jàngul fi muy tëjee waxtaan wii tey ci mbirum sëriñ ak alxuraan mooy dinaa anticiper mooy Mauritanie laay daw dem egg Mauritanie ci li ko yàlla defal ci alxuraan Mouhamad Fall alxuraan dégg ngeen ko yéen ñëpp ab naar bu xonq curul naar gànnaar dafa àndoon ak i bokkam ñëw ci ku ne am sa soxla biñ ñëwee bi ci sëñ Tuubaa ku ne wax sa soxla li nga bëgg sëñ Tuubaa defal la ko Mouhamad Fall ni ko man mu ne ko yow loo bëgg mu ne ko man damaa bëgg nga sol ma alxuraan nga may ma alxuraan dimbali ma ndax daf damaa bokk ci giir goo xam ne man Mouhamad Fall ku ci bokk te mënoo alxuraan say boo nga xaru doo tekki dara waxuma la ay soxnaak yooyu waaye say boo nga xaru doo tekki dara te man mënuma benn araf benn aay rek mënuma koo mokkoon adduna sax bëggatuma ci dara ndax sama nawlu yëpp mën nañ alxuraan fi ma bokk askan ma bokk te man mënuma dara jàng naa ba sonn mënumaa mokkal dégg benn aaya ma dégg la nag bëgg nga mu ne ko tey bëgg li sama yi bëgg sëñ Tuubaa ko tey ngaa bëgg li sama rob yi bëgg xëy na lu ñu doon wut si ay ndimbal yooyu mu ne ko man daal li ma bëgg mooy wax naa la ko soo ma ko mënee defal nga defal ma ko soo ma ko mënta defal itam ma dellu am na fayda nag Mouhamed Fall alxuraan wax ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko toogal ba mu toogee ba ca suba sa sëriñ bi dugg ci jàkka ji génn ci jàkka ji ne ana ana diw muy Mouhamad Fall ñu ne ko muy nii mu ni ko amara nii rabbi bi an uxl an ulaqi nekkal quraana yàlla soo borom digal na ma ci ndigalul yonante bi ma sol la alquran ni ko tàmbaleel baqara mu tàmbali baqara ba ci vingtième isib bi fi saasa di tari waxuma jàngal de di tari tàmbale bu tàmbale alif bi mu tàmbalee bàyyiwul moom Mouhamad Fall ci ku musta xam aaya muy tari di tari di tari ba ñaar fukkeelu aaya bi jeex mu ni ko demal mu dem ba suba mu ni ko anam mu mu waat ko mu ñëw ba mu jógee ci jàkka ji mu ñëw mu ni ko tàmbaleel mu tàmbaleel ci vingt ci unième isib bi ba ci quarantième isib bi juróom-benn fukki isib la ñetti fan ci la jël juróom-benn fukki bis bu ne ñaar fukki isib mokkal alxuraan diggante sëñ sëñ Tuubaa ak alxuraan leneen a fi yu bokkut yooyu bi mu ñëwee ni mu def alxuraan ci biir réew bi ak ni mu instauré ak ak li xew lépp lépp incha allahu rabbi dinañ ci dellu si kon damay taxaw tuuti su ko defee nag ñu ñëw ci xaaju ñaareel bi nga xam ni ci la ñuy taxaw gu waxtaan wi incha allah alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني waaw mbokk yi buñ bëggee ñëw rek tey ci tënk ci li mujj ci waxtaan wi incha allahu rabbi bu waxtaan wi jeexee danañ ci teg vidéo yu ci war a teg ni ngeen ko xamee am na ko doon sàkku sax ñuy jëkk vidéo yi waaye nag loolu itam xëy na bu ñu waxtaanee ba ci yàgg dugal benn vidéo lu tolloog fa ñuy wax lu dëppoog loola waaye jëkki ko moom du mën a anto noonu lu ci mën a xew rek ku déglu ba noppi li ci topp ci ay vidéo di ko mën a xool suñ demee ba jëmmi jamono itam ba niñ ko bëgg lépp dinañ mën a egg foo xam léeg-léeg buñ demee ba ci yàgg taxaw nga seetaan loo xam ne dafa tolloog la ñuy wax nga jàllaat kon mbokk moom bàyyi nañ sa xel loolu nga wax bu baax a baax ci ñi xam ñu ngi topp waxtaan wi jërëjëf li ma bëgg wax foofu nag mooy lii ñuy wax corona man dama cee xaw a ak tayel sax far waxoon naa ko te maa ngi leen di ñaan yéen ñi seetaan lii tey jii tey ko seetaan koo seetaan maa ngi lay naan juróomi sàq ci ginnaaw ba corona bi tàmbalee ba léegi képp koo xam ne toog nga lu yàgg seetaan bi ba noppi toog ba ci yàgg ngay xaraat te gis maa ngi lay ñaan nga tàmbalee ci juróom-benneel ba ngeen xool mbooleem li ma leen waxoon mbooleem li ma ci waxoon lenn lu ci nekk waxuma dem leen ngeen xool bëgguma ku nekk na dem li ma doon wax lépp ñi ngi tàmbali bi ci mujj ci sax mii weesu mooy bi may wax ni nañ yokk heure couvre-feu bi bi ma koy wax sax mujj mii laa ko waxee ñi ngi soog a ñëw di ko xalaat defaat waaye li li ci ëpp solo mooy dama bëgg wax rek am na yu bari yoo xam ne ci mbaaxu suñu borom waxoon nañ ko ca sàq yële weesu ku ci am jot demal boo amee jot nga toog xolaat mel na juróom-benn yi weesu nag laa ba koronaa bi tàmbalee ba léegi yin xalaat yëpp ngir baaxee ko. ak it laabiire ko sunu képp ki laay kattan lenn lu ci nekk am na ci yoo xam ne li ci ëpp ñu ngi dem di ko soog a def du ma wax nag da ngay da ngay def rek nga xool ak it nga déglu information mesures yi ñuy jël ak décision yi jël par rapport ak lan doon wax nga nattale ko li ci am solo daal mooy bii may wax ni dama ko waxoon dama noonu corona bi nañ ko jàppee ni am soj wala sibru jéem a dund ak moom ndax ku xool nii muy doxee nii moom jikkoom ji ku ñuy dundal la ànd ak di dund. moom jikkoom la moom day gan goo xam ni xëy na day yew yi bëy wala doo xam bu kañ la bëgg a dem ginnaaw nag nii lay demee te suñuy docteur it yàlla may na leen li mu leen may ndax tey boo demoon France juróomi téeméer yu feebar ñaar téeméer yi mën nañoo dee wala téeméer yi ak juróom fii bu ñaar téeméer feebaree mën naa am kenn nay faatu docteur yi faj nañ ko liñ ko fajal la allahu alam ala kulli li ma bëgg wax mooy waxoon naa ko dinaa ko waxaat nee naa leen société yi entreprise yi chauffeur yi lépp fi mu toll ñëpp la ñu war a bàyyi ñu dem liggéey ñu jéem a ànd ak lii seet nu ñuy dundeek moom bu fekkee day ay centre centre de corona yoo xam ni loolu rek koy tax a jóg ñu aménagé ko dès maintenant ba keroog moom mu koy neex wala muy neex suñu borom nga xam ne loolu dañuy dund moom. ñu mel ni ñu sibru fee lañ leen yóbbu ñu ne ñu tuberculose boo demee fànn fee lañ yóbbu ñu ne kon ñu corona ku ñëwati fee lañ lay yóbbu yàlla na fi jeex nag yàlla na yem damay wax rek waaw nga xam ne loolu waxoon nañ ko ci tàmbali kon li ma wax fi mooy dund gi daal wërta freiné dund gi nii mu ko téyee waru ndax mi ngi jur ngaañ loo xam ne moo gën a garab moo gën a bon corona mu ngi jur ngaañ loo xam ne ay effet yoo xam ne moo gën a bon corona te yéen jëruma koo lim du ma ci sori am na lu ma doon wax mooy dalal xel naka jëkk noonu naa leen nun am nañ ay faggukaay mën nañ koo jëfandikoo di ko fàggandikoo waaye am nañ lu ñeneen ñi amul mooy ñaan lu du wax bu ko tooxuma ko ñaan ñeneen ñi am nañ ay masque am nañ ay lépp ñun am nañ ko dañ koy jëfandikoo jëfandikoo waaye nag noonu am nañ loo xam ne ñaan kon nañ jëfandikoo arme redoutable boobu nga xam mooy ñaan li nga xam nag mooy effet yi te métti boo ko bëggee wax fii daf koy fanaan moo taxoon na dama ci xaw tay waaye jëf ju ñaaw jii ñu def te dégguñu ko fenn te njabootu sëñ Abdou Khadim ci boppam ñoo gën def ay vidéo ku ne dégg na ko lu tax bu nit faatoo man jot naa ne sax am na ñoo xam ne fi mu toll buñ buñ buñ buñ leen fay leen ma fay leen nañ ma fay milliard te ma déclaré ni looloo may reñu ndax dama xamul lu tax sëñ Abdou Khadim ñu ne dafa jabet ba ab tànkam ñu wàññi ko fukki at ak juróom mu tëdd ko génnul fenn yàlla dogal waxtu wii mu jóge fi ñu taxaw ala mikk ni sëñ Abdou Khadim loo ko yóbbu parce que bëgg nañoo mentionné ab Mbàkke Mbàkke bëgg nañoo mentionné kilifa Touba loolu lay wax ndax ñi ko gën a jege di ay doom ak i jarbaatam ñoo jëkk wax loolu muy ci vidéo yi ñëpp di ko dégg ñoo ñoo ko jëkk wax ñi dëkk ak moom ci kër te it li ma jaaxal ku ñu ko fi wax ku ci ñu mel noonu soxna sañ waxoon ni Touba la dëkk dafa kon maanaam doomam ja ko yoroon moom ba léegi amul contact amul ba léegi doom jaa te kenn gisagul lu ko dal ñoom dëkkaloon ci kër gi kenn gisagul leen dal loolu ay ay laajte yu may teg dama ni ñi ñu rey ñëpp li ci ëpp ak ñi kenn ku ci nekk ñi nga dëkkaloon ci seen kër amaguñ kenn kuñ ci ne dal na la quarantaine tu jot ñu leen a quarantaine sax wax far ba ba mu leen dal yooyu yëpp nag sax day day day jël suñu temps wax amuñ jot googu la amuñ jot googu waaw li ma bëgg wax rek mooy mi ngi bëgg indi loo xam ni ca tàmbali boo xoon naa ko na ngeen dellu ci sàq yi communication bu bone nii mosuma gis nii ñu gérer crise bi communication bu bone nii musta am te lii nag waxuma ko tey dellu leen ci sàq yi ma leen wax ca tàmbali ba laa leen waxoon ni mauvaise communication lañ jël ci ñu def ba tax na nit ñi nekk ci jeex bari na sax lu tax ci nit ñi gëmuñu ko mauvaise communication moo tax ñenn ñi gëmuñu mbir mi xëy na du luñ mën a weddi ndax bii def li muy def Europe waaye communication bi ñu waroon a jël te dox ko dëgg sore nañ ko jar fa waaw du taxaw rek déclarer lii la lii la déedéet dafa am beneen communication bu bokkul ak déclarer cas importé cas communautaire rek cas contact dafa amoon beneen communication bu bokkul boroon jëm ci population bu bokkul ak loolu bi def ngoon gu nekk te defuñu ko. wala bu ñu ko defee defin ba baaxul bari lu mu war a rëq-rëq ci mbir yi ba tax na nit ñi jiix jaaxa bu mu bëggee leer mooy ni ñu gérer crise corona ni ñu ko yore ni ñu saytoo crise bi bi mu duggee Sénégal lay ñun dañoo copier rek Europe réew yi tugal yi ni ñu ko doon yore rek buñ couvre feu ñu couvre feu buñ ndakkee mas ñu takk ba buñ naanee li ñu naan ni noo kirin lépp rek waaw ñu yokkee ñu bu ñu wàññi ñu wàññi lu Macron def lu kenn rek ñu topp ci loolu te ñun bokkuñu ay réalité bokkuñu tempérament bokkuñu réalité bokk déedéet war nañ ko mën a nangu ni am na mais noonu nañ ko gérer ci sunu manière noonu nañ ko war a jàppe noonu ni ñu a waajale nit ñi ni leen ko war a waxee ni leen war loolu yëpp daf ci am mais loolu yëpp defuñu ko duma ci sori ci yeneen yi nga xam ne ay rumeur la wala du rumeur sax ndax Brésil ne nañ dañ jël ay kees docteur yi bu ñu yóbboo ci su police ñu xool ko ndekete kees yi dara nekk ñu ne ay corona ñu dee lañ yéen a ngi koy gis ci vidéo yi waaw ndekete kon mbir yi am na néew yu yóbbu sax ne ay néew la te kees gi nag kenn du ci nekk yéen a ngi koy gis damay li may wax da ngeen koy gis ma di ko gis waaw ah. loo xam dañ koy wane police di topp loolu ba xam ne loolu amul li ci am solo daal mooy li ma bëggoon a waxaat fii mooy moo xam Chine ko defar corona virus bi doomu jàngoro ji moo xam Chine ko defar wala Amérique ko defar wala ku ko defar wala dafa ñëw noonu waaye dinaa ci am benn jàngat bu ma ci def lobby yi nekk ci àdduna lobby yi nekk ci àdduna amuñu amuñu amuñu patrie maanaam comme ni nga naan kii ab sénégalais la dafa bëgg réewum réewum jaral na ko lu Cheikh Anta Diop nangam nangam Abdoulaye Wade xeet yooyu Thomas Sankara fa mu dëkk ñooñu nga xam dañu bëgg seen réew ba duñ ko joree dara dara dara ab sénégalais mën naa nekk fii di bon temps juddoo Sénégal yaroo fi ay maamam ba noppi mooy wor Sénégal trahir Sénégal mën naa nekk lu tax day bokk ci loge day bokk ci lobby boo xam ne ñoom loolu lañ gëm gëmuñu réew li ñu gëm mooy la ñu ànd bokk gëm ko bëgg ne doxalee àdduna loolu lañ gën a gëm ci seenum réew tey mën ngaa gis chinois président chinois wala ministre chinois boo xam ne dana dana dana d' accord ci la Amérique di def te ci kaw réewam la koy def Amérique di def lu bon Chine ministre ba d' accord ca parce que dañoo bokk lu ñu gëm principe yi ñu gëm fa ñuy làq di waxtaan seen mbir ñoo ko bokk loolu lañ gën a gëm ci réew fii laa juddoo fii laa bokk ak je suis patriote déet ñu loolu ay principe lañ gëm mooy idée bi ñu bëgg li ñu bëgg a doxal ñoom ñoom bu ko bokkee sayeboo sénégalais bii mën naa nekk fii di sénégalais wor Sénégal war yu métti ànd ak France wor Sénégal sénégalais mën na ko def lu tax mooy la bokk ci loge ba ñu bokk loge franc-maçon ñu ba wala loge beneen ba nga xam ni loolu yëpp da koy xam bis ni ki tey ab sénégalais ay sénégalais fi yoo xam mën nañoo war Sénégal maa leen wax loolu du ñu xool tax fi laa juddoo fi laa bokk damaa war a bañ ngir réew mi dama ko war a bëgg dama ko war a déedéet loolu ay ay détails la ci ñoom idée la ñu gën a fonk mooy lañu la ñu siyante toog di ko kenn du ko fekkee muy loo xam dañ koo gëm seen gëm-gëm la ni ñu war a yore adduna beeg ordre mondial yeeg xeet yëf yooyu yëpp loola la ñu d' accord bu loola bu ab Sénégalais mën naa ñëw fii taal Sénégal wala mu indi Sénégal loo xam ni kenn du yëngalu ko sax ñam bokkal mbuus rek lañ d' accord la lañ d' accord moo tax ma la bi beeg chinois bi ña gën nekk ci kaw mën nañoo juboo ci loo xam ni kenn du ko xam ñu di ko wax naan Chine ko def Amérique Amérique ko def d'accord ab chinois mën naa wëlbati ko nangu ñu def réewam loo xam ne li tax mu di ko nangu mooy fa bokk moo tax mu di ko nangu lii nag kenn du ko dindi moom principe yooyu lañ gëm gëm ñu réew de gox bi laa juddoo ak fi laa bokk ak damaa war a bëgg sama réew ak damaa war a nekk patriote ak nationaliste déedéet waaw yooyu la pour ñoom loolu na ko ñëpp bàyyi xel ginnaaw bu loolu jàlle mu ñëw ci ñetti taxaw seetlu yoo xam ne bala may jeexal bi mu ci jëkk nag mooy euh, soxna si nga xam ne moom lañ quarantaine noonu ci dakaar teñ ne dañ koy yóbbu mu leen bàyyi li ma sama kër quarantaine ma fii di ma garde ci liñ wax ñu yóbbu ko ni ko déedéet yóbbu ko hôtel kon léegi responsabilité këram nga sécurité këram état mooy responsable te moom bu jógoon porte plainte dañ ko war a dédommager luñ ko sàcc ndax état ko forcé génn ko yóbbu ko kon war ngaa assurer sécurité këram ginnaawam nee nañ ñu toj këram jël oram avocats yi may déglu rek yéen juriste yi xool leen li ma wax rek ak lu même bu dee logique rek nit koo xam ne yaa ko ne génnal sa kër mun la bàyyi ma fi man du génn tëj ma fi wutal ko ma téye ne ko dee fii doo fi toog du ma la fi ko mu bàyyi këram dem nga xam ne yaa war a assurer sécurité kër gi assuré nga ko wala assuré li may toog la sàcc nañ ay bagages am moom kon léegi yow yaa ko war a fay xaalis beneen bi mooy lii nag bokku ci waaye da cee dugg Mbàkke Bawol gii dafa am loo xam ni li fi nekk ci ay intellectuel jàng fi ca Samba Yàlla Jóob ba léegi ministre ak ñu nekk cadre yi fi jóge avocat yi ñëpp man li ñu ndox mu naqari mi ñu naan ba doppi di fay di fay ndox nit ñëpp di fayee ndox loolu waa Mbàkke man gis naa ci xalaat maanaam bind leen benn porte plante état ci boppam état yi fi jaar yëpp ah porte plainte rek état pour léegi ñu dédommager leen depuis ba ngeen tàmbalee fay ndox mu naqari ba léegi waa Mbàkke bool seen i avocat seen i intellectuel yëpp jëm ngeen déposé plainte wut ay avocat gëm naa ne xaw ma régime bi xaw ma moo waaye tôt ou tard dañ leen ma a dédommagé li ngeen mas a fay lépp ci ndox ndax mu muy SONES muy SDE muy o kenn ku ci nekk muy état du Sénégal ab dëkk nan nga koy fayloo ndox muy facture ndox ngoon gu jot weer gu dem fay ko te ndox mi ngi koy jox baaxul lii boo ko yóbbu sax tribunal international de la léegi léegi ñu condamné état Sénégal kon nag man bàyyi leen di xalaat loolu yéen waa Mbàkke bind leen porte plainte boo xam te état ngeen di porte plainte ak CNO ak mboolem ñu fi nekk ñëpp SDE SONES ñi feebar sa yaar ba noppi nañ leen dañoo bëgg ñu dàmp ñu fii fanweeri at ca ginnaaw ba ngeen ko dal def ba léegi war nañ leen mën a dàmp ay milliards bu ngeen déggee li ma wax rek bu leen ko bu ngeen amee avocat yu man avocat aw ma ci warante mais dëkk Mbàkke di fay ndox ndox mi naqari nga xam ne ndox mu sax xorom la guddeeg bëccëg yaa ngi koy fay te yow da ngay fay dañ laa a dox ndoxum qualité loolu kon Mbàkke da ngeen ci xalaat beneen bi ci mooy dragage bi ci Kaolack bi may dem Porokhane daw ci màggal gi seen bateau yu taxaw ñu nii dañoo war a draguer dexu Kaolack gi defar ko ba mu baax ndax kii mën fee daw waaye man li ma jaaxal mooy jamono yooyu laa ko nar a dox sax depuis ba ñu annoncé état wu senegal ni dañuy draguer dexu Kaolack gi ba léegi dañ koy setal defar ko ba mu baax lu ay bateau mu ñëw bateau yi un an ñu def ko fi daanaka te boobu léegi tàmbalee liggéey bi néew mu baaxul de mais est-ce xam nga ne bato yooyu tubaab bi indi ko fi wala ku ko fi mën a indi weer bis weer wu dee dañ koy fay chaque jour que jëfee da koy bato bi moo xam liggéey na moo xam waaw loolu est-ce loolu noonu la lu tax kon xooluñu neguñu woon ba xaar waxtu yi nga téye ko fi ay millions millions yi fa ndax fajul woon ci ay ubbi ay GIE ay xale liggéey ci te lii ma leen wax bu ngeen ko toppee bato yaa nga nee dañ leen di fay liggéey nañu u liggéeyuñu yow a tàmbali liggéey nga ne ko waaye jële ko Europe wala Afrique foo ko mën a jëlee mu taxaw rek moom yoonam néew ci l'essentiel moom ba tam du toog di xoolal da nga koy fay moom bis bu ne da koy fay xaalis boobu nga ko waroon fay nag fu muy tegee te tàmbalee ko liggéey bi sa bi dëgg-dëgg da ngay toog bi ci yàgg nga ni lii docteur bi nekk Suisse dinaa ko dugal docteur bi nekk Suisse li mu doon wax ci matériel médical yi nga xam ne Sénégal perte na ko ginnaaw bu ñu ko joxee lauréat lu gën daw yorom loolu amul bi may waxee mooy jeexal euh, école ci sàqi dem leen ci juróom-benn sax ci ginnaaw wala juróom waxoon naa ko maa jëkk a wax ne école bi man sama xalaat laa wax nag taxaw seetlu citoyen jëkk a wax ne man bu ma doon bu ma doon xalaat bu ñu doon dig sama xalaat bu ko kenn doon nangu man damaa joxe sama la keneen joxe école bi année bi ren dañ koy annulé buñ ñu ko annulé lu sax li ma doon ragal ñëw na toog nañ dinañ toog ñetti weer duñ jàng nawet bi dugg na dafa am genn wàllu am na 30 pour cent yoo xam ne ci kaw gi leen dëkk ña ngay bàyyali seen baay. bu dul loolu école yi ay mbaar la kenn mënu faa jàng abri provisoire la 30 pour cent ñi ngi ci àll bi ci élèves yi ndax da ngay jàngal 70 pour cent yi ñoom léegi 30 pour cent yi nga xam ne mënuñoo jàng seen seen école daanu la ñenn ña ñu nga ca fas yi di dimbali seen baay ñoom duñ jàng ñoom kon ñii dañuy am année valide ñee moom année perte mbir dañu mën leen lu jiitu rek corona bi am am na ñaari weer yoo xam ne école am na problème boo xam ne waroon nga amal xaalis sax ndax at mi dina baaxam déet boo ci boolee lii nag kon juróomi weer lay doon kon yaakaar naa ne li gënoon mooy fi adduna jeexagul at mii ñu profité ci fay enseignants yi li ñu leen yoral lépp profité ci luy abri provisoire muy mbaar yi nga xam ne day taw ñu defar ko profité ci lépp loo xam ne ko war a changé ci programme bi defaraat école yi defar yëpp maanaam nga xam ni année ba lay ñëw bu ñu ubbi ñu ne nag lay année boobu la ñu ubbi diggante bi nag xale yi ñoom am na ñuy jur ñu fas yéene ne xiirtal ñuy réviser seen i du nekk ci di nab nabi ak di jéem a jàng li leen wees woon lépp mais at mii fexe ba def kaat at dama xalaat wax de enseignant yaa ngi fi ñenn ngi fi dinañ wax seen xalaat mais man maa waxoon lii nag waxuma ko tey juróom benn bis corona bi soo ko tàmbali ba ñu waxee ci école bi laa leen école bii man li ma xalaatoon fi nekk ci problème lépp ko une bonne fois nga xam ne du kenn dootu dégg naan école ñu am problème su ko defee at ma lay ñëw day bees tàkk ci jàngalekat yi ci parent yi ci élèves yi ci gouvernement bi lépp nga xam ne problème école dootee su ko dégg am nañ temps fi ñu toll pour réglé ko waaye bu ñu fi bëggee wëlbatiku léegi nii dañuy école bi à distance wala fukk dem jàng juróom-ñaar fi sol masque nangam nawet bii ñëw même bu nawet bi ñëwul woon sax dafa xel dafa nanguwul fii xale yi fi ñu toll nga xam ne déconnecté nañ bu yàgg te boo xoolee ñi nga xam ne seen waajur am na ko mu nga am xëy na 30 pour cent ñoo ci dem ñoo xam ne ñi ngi ci école privée yi wala xam ne fi ñu ngi jàng man nañ ko amuñu problème buñ continuer wér du am benn efe ci ñoom mais am na ñoo xam ne buñ continuer woon ana itam boo moytul 70 pour cent ñëpp dañu daanu ndax bañ jógee ci école bi rek lañ déconnecté amuñu ku leen di toppatoo ñeneen ñi nag am na ñoo xam mën nañ leen entretenir ñi ngi jàng ñi ngi leen di kii ñooñu waxuñu ko mais loolu mooy mooy minorité bi du majorité bi kon loolu bëggoon naa ko ci sànni ci taxaw seetlu bi di leen gërëm di leen sant euh, di balax ñëpp di balax ñëpp incha allah li ci war a dugg ci ay vidéo euh, dina ci dugg ngir xool ko biir di ñëw itam dañuy wéer rek diggante Serigne tubaa ak alxuraan waaye yemul ci loolu ndax da cee boole waale jaar jaari Serigne Touba maanaam ak dundam day ànd ak Serigne Touba ak kon na ko ñëpp waajal incha allahu rabbi euh, mbir maa ngi noonu euh, nu ñaan yàlla dégg ak topp ak jariñu euh, di di ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi laylatul xadr gi ñu jëm yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm waaye daal nu dellu ci li nga xam ni mooy ñaan yàlla ak jaamu yàlla te xam ni yàlla suñu borom ak xam ci nun dañ ko war a jox te yàlla amul problème man xool naa ko ba ci yàgg waa yàlla du ma ni bëriwul problème mais yàlla amul problème nun noo am problème problème nag seytaane moom moo rébellé wu dafa dafa fipp ba noppi bëgg ñu mu àndal fipp c'est-à-dire daa fipp ba noppi bëgg ñu mu àndal fipp yàlla moom du ma ne bëriwul problème yàlla daa am xam naa ne amul problème nun noo am problème parce que danoo wax loo xam ni defuñu ko wala nu war a gëm loo xam ne gëmuñu ko wala nu comporté woon noo xam ne war waruñu ko comporté te yàlla amul ci benn intérêt moom benn intérêt intérêt moom ku ne xam na lan mooy moo intérêt loo xam ne boo ko ñàkkee mu gaañ wala boo ko amul dangam yàlla lenn loo xam ne bu ko deful woon tey dina ko wàññi dara du am bu buñ ko jaamu woon noonu ñëpp waxuma jullit ñi de mbind fi mbind yëpp xar yi ba yéeg nit ñi yëpp buñ ko doon jaamu benn bi chaque jour ba te amul lu mu benn lu mu mën a jëriñ yàlla ndax loolu yëpp bu dee jëriñ yàlla yàlla mën na ko def ci benn seconde loolee nga yaakaar ni mën na ko jariñ moom bu ko neexee mu bind ko ci benn seconde mu jariñ ko benn la nga yaakaar kon léegi li ci am solo mooy nu lay dimbali nun lay xetli nan toogaat xoolaat suñu bopp en nag kenn ku ne dugg sa néeg boo jullee ba nga toog ni li ma doon dégg ci bi taw sama digg yàlla waaw ah, nangam xalaataat bu baax a baax muy man ak yéen ñëpp yàlla na yàlla boole dimbali boole taxaw noonu nag dañ doon jotale rek ci barkeb Cheikhul Khadim euh, kon incha allahu rabbi ba sàq mii di jëw numéro bi ñeen ñu doon laaj nag mooy 77 854 12 54 77 854 12 54 ñi ngi gërëm itam euh, soppee daaree Saxum Touba maa ngi leen di gërëm mënuma lim ñëpp waaye soppee daaree Saxum Touba mi nga xam ne ñoom taxawal nañ ko def ko ci whatsapp bi muy soppee daara yi Saxum Touba ñu ngi leen di ñaanal di leen gërëm di leen sant fas yéene ànd ak yéen liggéeyub Serigne Touba bi noo ngi dëkk ci leen ñaanal yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na nu yàlla taxaw te dimbali nu ba li nu bëgg a liggéeyal Serigne Touba nu liggéey ko eggale ko te mu doon njariñu jël cépp bi xormatel Moustapha sallallahu alayhi wa sallam barke borom jërë ngeen jëf الرجل فضلنا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 العالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منت الذي يصرف من دفو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام له والله سميع عليم ما وجوب لا صدران laat sadda lan bi daarin lan laatu daara lan wallaay mm-hmm. mm-hmm. daara lan mm-hmm. xayru mu daarin jigéen wallaay sa bi daarin jiddaal walaatu daaru nangi talaax waxaat ma ko ma dégg laat sadda lan bi daarin lan laatu daara lan wallaay daara lan xayru mu daarin jigéen wallaay sa bi daarin jiddaal walaatu daaru nangi talaax akhraja joko akhraja joko akhraja hu mangalan akhraja kangalan fal akhraja hu ngabaran akhraja ni ngambargan akhraja kum ci nahar akhraja tang xital wa akhraja al arda qala hu tasari nahar limal moko ma deg de hu mangalan de kangalan fal de hu ngabaran de ni ngambargan de kum ci nahar de dëkkaanga lem faal de mm-hmm. hunga baraan de mm-hmm. nenga mbargaan de kom mm-hmm. te nëx bi de kaanga xitaal de teenga suuf sirati joxumaanga laan joxumaanga laan dëkkaanga lem faal de hunga baraan de nenga mbargaan de kom te nëx bi de kaanga xitaal de teenga suuf sirati mag ñi dañoo wax ne lafa laan fa la raaf déedéet lafa laan lépp dafa la raaf de lu tax joxfar lakum laan toxfar mhm. lakum laraaf xataayaakum laan xataayaatikum laraaf ba mhm. sanna siidu laan mhm. sanna siidu laraaf moo si leen ñoom ñaar ca laraaf fa ansal naa nga laan laraaf fa ansal naa nga laan fa arsal naa nga laraaf fa baddala allazina salamu qawlan xayra lazi qila lahum fa ansal naa fa baddala allazina salamu minhum qawlan xayra lazi qila lahum fa arsal naa fa baddala allazina salamu qawlan xayra lazi qila lahum فأنزلنا الله فبدل الذين سلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا الله بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عادوا من المدركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله alquran siin tooy li waaw boobu بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قصاص فلمسوه بأيديهم لقالوا الذين كفروا إن هذا إلا لولا أنزل عليه الطور أو كسبوا بآياته إنه لا يكون الظالمون أنهم أحسن مسواي إنه لا يكون الظالمون تمرقان له عاقبة الدار إنه لا يكون الظالمون أنهم له عاقبة الدار إنه لا يكون الظالمون قصص فليهلك القوم الظالمون أنهم وما يجعل بآياتنا إلا الظالمون عنكبوت nodd gi ñu fi nodd tey. nee na nodd gi nga xam ni nodd nañu ko fi tey. ci forme nañuy nodd ci Touba. ci ni nga xam ne noonu lañu koy defee ci Touba. lu rëy la. nee na lu rëy la tey lañ fi mos a nodd fii. ci Paris te boo koy seetlu. boo koy seetlu nag. gouverneur bi nga xam ni. gouverneur bi nga xam ni. moom dafa topp ci gouverneur yi fi masaana ne. moom dafa toppoon ci gouverneur yi fi masaana nekk. ba ki fi jëlee sëñ tubaa ba nga xam ni demu sëñ tubaa ci loxoom la jaar. yóbbu ko géej. ñu yóbbu ko ci géej gi. yàlla def tey. ne yàlla def yow fi toogal sëñ Touba. yow mi di jëmm sëñ Touba nga dellu si fi. nga dellu si nga ñëw fi tey. nga ñëw fi tey. ni nga fi ñëwee. ni nga fi ñëwee. ñu julli fi. ñu nodd fi julli fi. loolu lu mat a xalaat la. lu mat xalaat la nee na. yaakaar ne bu ñuy nettali ëllëg. nee na ëllëg bu ñu dee def taarix. sëriñ bi doon jullee ci géej gi. ni sëriñ bi doon jullee ci géej gi. war nañu nettali bés bii ñu ngi jullee fii tey. nee na war nañu ci boole itam bés bii nga xam ni moom nga jullee fii tey ci pale bii. daanaa dégg sa bopp mu naan. nee na daana dégg ci waajuram maam moo tolluwaat rahmatulah alayhi mu naan. sëñ Touba ba mu ñëwee. mais sëñ Touba mu jógee ca exil ba. ridwaan la alay ba mu jógee ci géej gi ñëw. dafa wax ni jëlee ma fi indi ma fi taxul ñu jëlee ma fi. mais jëlee ma fi indi ma fi taxul woon ñu jëlee ma fi de. moo tax lii am tey. moo tax lii am tey. day rek sëriñ Touba moo bare doole. nee na ndamu ndam la day wane rek doole sëñ Touba. ndax ñoom ñu ko fi jëlee woon. ndax ñoom ñi ko fi jëlee. yàlla jëlee leen fi. yàlla jëlee leen fi. ba indilu fi tey. indi fi taalibe Serigne Touba indi fi taalibe Serigne Touba. indi fi taalibe julli fii. fii tey xam nañu Serigne Touba leen ëpp doole. ñu ni woon la nga xam ni Serigne Touba yëkkate woon na fi fi amee mu far amee fii nag tey. julli gi ñu bokk ko tarixa yëpp. mais julli gi nag mu barka bokk ak diine ji. loolu yëpp turuq yëpp. loolu rëy la loo xam ni. nee loolu lu rëy la loo xam ne. bu ëllëgee historien ko nettali. mais jàngale ku rëy ngi si woo xam ne ñii ulamaawu taarix. ndegam lii ndegam lii ci man la jaar. waaye nag lii yàlla ka jaarale kontaan na ci trop maa ngi lay gërëm bu baax. mais yàlla jaarale ko ci moom ne bëgg na ci lool mi ngi sant yàlla te di la gërëm. di gërëm ñëpp ñi teertu si ñëpp. Mouhamed Lamine Bara di nuyu sëñ si teer yëpp ak ñi teerul yépp ne bàyyiwul kenn kenn kenn ñi ngi gërëm ñëpp. bi dafa wax ne ñëpp. digal na ñu maas ji tuub te sàkk sarax te bala ta yàq foo jëm na ko jë na ko yóbbu képp ku nekk la mu yéene boppam na ko yéene moroom loolu mooy digal sëñ bi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh يأتيكم قول أن يبقى المحصنات المؤمنات فإنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فرقون بإذن علينا واتونا أجرون بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أوصينا فإن أتينا بفائزة فعلينا نصف مع المحصنات من الأصحاب ذلك لمن قتل منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم والله غفور رحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبون السوات أن تميلوا ميلا عسيما يريد الله أن يقف عنكم وخلق الإنسان رهيبا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بابا كسلان على صدلام يقيم عدلان تقاتلوا لان نقاتل لان ترتابوا لان تكتبوا لان naa bu doon gagalay xaw fuñ tagalay ijaara tagalay ñoom ñu tagalay tukku si tonga jigéen dawloo nga jigéen tedulu ñaari jigéen ndogu allah takono fina tum faamu wasamu suma taabalaw ci allah takolo mi masukrismullahi caanaam allah tusiru ku bihi say an wawil waldeni isaan caanaam الله تجد إذا أمرتك تعرف الله يجد ما ينفقون جبران الله يعلم حدود ما أنزل الله جبران الله تعبد إلى الله إنني لكم منه نسير وبزير جود الله نتوكل على الله يا إبراهيم الله تكون مع ساجدين جيجري الله تركز من دوني وكيلا جيسراي الله تكلم الناس سلاس لا سويا جمرم سويا غمرم سريا غمرم سقيا جمرم الله تكلم الناس سلاس لا سويا جمرم allaataasanii qad jaala rabbuki taata kasariyaa camareem allah kuna bidu'aayi rabbi taqiyaa camareem allah yakunu mu'miniina ci sooraay allah yajidu lillahi allazi yukhrijul qabaa fis samawati wal ardi ca naan wi allah taalu alayhi waatu ni muslimina ca naan wi allah tataqaw fil misaan ca raamaan allah tunfiqu fi sabilillahi wallahi mirasu samawati ca hadis salimuna bañ taara topp laay salimuna bañ taara topp laay salimuna suma fona salimuna way saaxasna salimuna walillahi salimuna fakulu salimuna xaalisahu salimuna wumaati tum salimuna fanjinaaw suma fona nga laan way saaxas naa nga laan walillahi nga galay fukullu nga nali khalin so mu'min uma tutum qasas fandina han kabur woni fal salika du wan musulman fa zawwa nusli naran wa kana salika alallahi siyan in tataniwu kabaira ma tunawna anhu nukaffir hankum sayyatikum wa nudkhilkum madqalan kariman wala tatamanu ma fatallahu bihi barakum ala batin lirjalin sibun ma yaksabu wal nisa'i sibun ma yaksabna was'alullaha min fadlihi inna allaha kana bikulli shay'in alim رحيما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوا نسيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما